ba joona suubu leen dem gaar ba jóg leen taxaw jóg nuy sant Seyxi Fallilo jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fallilu guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi Fallilu yaaro ci mboolem law lu yow Fallilo Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géejug mbindeef ay gi neex na Mbàkke Cheikh Fallo góorgóorlu lii lay jëriñ ñu ne moom jàll moo leen jàllale sëriñ bi nee na yéen ñëpp ñu ngi bëgg yéen nee na yéen ñi ngeen xam ne bisub sëriñ Fallu ñëw bi ngeen xam ne war ngeen cee doon dara yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm def ngeen lu rëy sëñ Fallu may gi mu am ci yàlla dem jaaree ci Serigne Touba bu bisam ñëwee nga yëg ne war nga cee doon yàlla tax ngeen def ngeen def ko ngir wut ngërëmu ngërëm loolu ngeen di wut muy ngërëmul yàlla yàlla ngeen ko am dégg ci yéen bu def ngeen loo xam ne lislaam bëgg na ko ngor bëgg na ko ndax lii ngeen def nee na lii ngeen def dafa bokk ci gore ku mel ni Sëriñ Fallu Mbàkke nekk fi ba jóge meloon ni meloon bisam ñëw ngeen bàyyi lu ngeen jàppoon xam ne doon ngeen ci loolu moom ngor te lislaam nag bëgg na lool moom dañ ne at yi néew ak bi mu ñëwee li nga yëg ak li war ci yow sa digganteeg jaam yi ak hmm. li nga ko berale ak yëg ci ngay xamee ni doon gone du te doon jàmbaar te ah. ne agsi na ci yow ñii mu àndal agsi na ci yow mu ànd ak ko jàll jàll moom yàlla gudd fan rek li ko yéen yàlla am na la liggéey sëñ fa la liggéey barke sëñ Bamba ñun Mbakke ñun Mbakke ñun Mbakke maa ngi suñu Abdou mi ngi ñaan ci kàddu na yoon. yal yàlla faj seen i yàlla leen yàlla sàmm. fu ngeen bëgg a yàlla leen fenn yow. allahumma bismillah bismillah